mbokk yi kon asalaamaaleykum dellu siwaat nañ suñu émission bi nga xamee ne moo di jano bi euh, tey nag ñu nekk ak ki nga xam ne moo di euh, Bassirou Diomaye fay nga xam ne moo jiite képp ku mu mën a doon koo xam ne kii cadre nga ci euh, ñi nga xamee ne ñoom la ñu duppee les wala book Pastef rek li gën a gàtt mu di parti boo xam ne bi ki nekk ci bopp bi kenn du ko présenté kenn mu di Ousmane Sonko Bassirou ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay doon Mhm, di la ziara bu baax a baax. di di la ziar delloo ziar di nuyu sénégalais yëpp ñi nga xamante ni ñu ngi seet ñu ngi déglu émission bi. fu réew mi toll. <laughs> réew mi dafa mu toll xam naa ne sénégalais yu bëri ku ci nekk ci fi nga féetee. Mhm. am na tontu goo mën a am ci salaajte bi ndax nga xamante ne day liggéey guddi. Mhm. ñu ne ko ñëpp mën nañu liggéey. Mm. ñëpp mën nañoo jëflante ñiy jaay ñii jënd ñiy dox seen soxla am daan seen doolu suturlu mm-hmm. waaye yow mi nga xamante ne sa activité guddi la dootoo ko mën a defati mm-hmm. te état bi joxul dara te joxula dara jëlul dara tëgg ko sa pour nga mën ci jàpp di suturloo ñeneen di suturloo mm-hmm. ñooñu boo leen laajee tey réew mi fu ñu toll xam naa dañu la ci mën a wax seen njàqare seen tiis fii nga xamante ne tamit euh, ci wàllu politique euh, ñi nga xamante ne féete nañ euh, ci Euh, yàgg xeex démocratie yàgg xeexal mhm. yàgg xeexal démocratie yàgg xeexal euh, liberté mhm. euh, te bañ tamit nooteel sàmp ci réew mi mhm. ñu fekkee koy ati ati ati ati ngi nii yàgg ko xeex ak ñeneen ba fu ñu ba democratique yu ñu am tey bu ñu gisee nu ñu koy salfaañi tamit boo leen waxee laajee réew mi fu mu toll dañ la mën a wax ne réew mi jafe-jafe yu métti ñoo fi am ci wàllu deltu gannaaw ci côté est-ce que du ngeen dem ba mu yàgg yéen ñi nga xamee ne yéen a bootu ci Ousmane Sonko ñu duppee leen ay nihiliste xanaa nag koy def dana am loo def nag lu baax nag non waxuñu limite oui non non lii je veux réew mi réew mi bon ñii boo dee tàkkusaan nangam bu dee timis bi ñu daan liggéey amatuñu fu ñu teg seen tànk la limite am nañu am nañu am na am na lu baax bokk non xam na xam nga ci réew moom bu ñuy jëlee par ak gune mhm. li tolloo nii ñeenti junni milliards teg ko sa loxo. Mhm. lu mu néew néew néew mu am loo def waaye dafa fekk opposition puisque pouvoir am na ñu bari ñoo xamante ne tamit lu ñuy euh, lu ñuy lu ñuy wone mooy lépp lu baax. Mhm. rôle opposition dem nekkul dem feelu waa nguur gi pour ne nguur gi kat li muy def lii ak léegi lii baax na waaye nag dañuy opté pour signaler loo xamante ne pour ñun bu buñ ko defaroon mu gën a baax bu ñu jëfe woon leneen mu gën a jàgg. Mhm. mais ça veut pas dire que booy souligner wala booy juut baaram ci loo xamante ne doxul dara doxul ci réew mi wala dara baaxu fi loolu bokkut ak li nga xamante ne moom la ñuy d d'accord Ousmane Sonko ñëpp dégg nañ kàddu yi nga xam ne mujj na ko daal di génnewaat waxaat. Mhm. Euh, affaire bi est-ce que dafa gën a lëndëbal parce que ci même in ci ci ci bi mu waxee ba noppi daanaka quelques heures après la ñu déglu la ñu déglu euh, euh, Adji Sarr alors. diggante boobu noonu ñu ne boo wax na lépp amu ci woon benn gêne dafa ñëw rek wax ko comme comme si vraiment li ñu wax dëgg la gu xel mi dal est-ce que laaj bi mooy est-ce que dañoo dalal xelam pour mu nekk à l'aise wala dafa am certitude pour mën a répondre juge bi nu mu ko neexee te kenn influence wu ko loo c'est non xam nga bu ñu la dee bu ñu la dee tuumal ci loo xamante ne defaloo ko sa premier ressort maanaam ci fi nga mën a sukkandiku du lu nit di wax di dalal sa waaye yow sa diggante ak sa borom ak sa aqulaay taala mooy njëkk doon sa tribunal mooy sa tribunalu conscience ni ñu koy waxee. waaye Ousmane président Sonko depuis bi affaire bi commencé. Mm-hmm. amul lenn loo xamante ne bu taxawee wéet ak moom ak boroom am na lenn loo xamante ne mu ngi koy mu ngi koy jiiñ boppam ci tuuma goo xamante ne def def na lu mu war woon def ndax buñ ko doon wax ne gars yi ñu ngi lay jéem a fexeel ci fi nga xamante ne foofu ngay dem di fa maase woo. ñun am na ñoo xamante ne ñu xóot la ci nguur toog nañu ak ñun fu wéet a wéet a wax ñu ko ba sax bi affaire bi di waaj a accéléré yàgg nañu ko wax waaye nag dafa di koo xamante ne dafa wax ne man fii may dem na le du sam bànneexu bakkan moo ma fay yóbbu ab docteur bu may topp moo ma ne foog nga koy def toog naa fi ren ba weeru mars avril ma feebar fi feebar bu métti bu boo moytuwul naroon naa jël opération risque boo xamante ne finalement bu ñu xoolee chance yi pour mu am ci ndog-ndog yoo xamante ne dootuma ci mën a jóg dama préféré bañ ko def ñu nekk ak docteur yi di faj di faj di faj ba tane am docteur bi nee ma li ma la waxoon pour nga koy def mu defoo ko te foog nga delluwaat ci mu ne nag donte ñu ngi may araftu ci loolu man au moins dina am yoo xamante ne. mais mais Ousmane xamoon na ne ñu ngi koy topp ci foofu màkkaan moom mu demoon. si si waxoon nañ ko ko. mais xam nga boo boo boo li nga li nga mën a def mooy bu ñu la waxee del faju boo demee ba bàyyi ko gis yow yaa ngi bëgg a faatu. astafurlah wala yaa ngi bëgg waaye yaa ngi. yaa ngi bëgg loru oui da ngay da ngay bàyyi lépp def li ko. mais da ngay def li la soowee parce que li ngay ragal yëpp ci wàllu nguur boo dundatul balaa ngay naam ne sax boo dundatul wala mënuloo sa bopp nekk ci chaise doo ko def waaye dafa ne man segem fi may dem sama digganteeg sama borom defuma fa dara lu ñaaw te jël naay précaution yoo xamante ne tuuma gu dëgër mënu fa jóge ndax fi may dem kër la boo xamante ne ñi fa nekk. borom ki fay liggéeyal ak borom këram la ak njabootam te maa ngi fexe ba fépp foo xamante ne ñu ngi may ñu ngi ñu ngi faj ma fexe ba ñaari nit nekk fa moo tax boo xoolee tuuma bi donte état jël na ko yëkkati ko ngemb xale bu jigéen bi nëbb ko euh, euh, njabootam ba mënuñu jot ci moom mënuñu wax ak ñoom Sénégal yëpp xam nañ ne que lii nii euh, amul dara lu ci taxaw. justement loolu laa la laaj nii xëy na da nga tontu ñaar yoon mooy. Mm. soxna fi tey ci presse bi li ñu liir mooy. bi mu jàkkaarloog juge bi dafa nekk à l'aise mais dégg ñu ne daal wax na sax ba wax yu baree bari nga xam daal d'après presse bi lañ bind ah presse bi ne moom moo tax man la est-ce ndaw si tamit dalal lu ñu xelam wala dama laaj nag bala daloo dañoo dalal xelam wala boog dafa am ci lu mu sukkandiku wala xam nga ndaw si déjà ñi la ko sant boo xamee nay borom doole la rek xëy na loolu mën na doy pour dugal la ci jéyegu toll nii ku ciy dugg am na déjà balaa nga ciy dugg fu ñuy dalalee sa xel lol ci ben gi la. wa dañ la amul problème ak yoy wa lol nga. lol lol rek mo meuna tax nit song xala bu ndaw song lu tollu ni. te gis nga lu mu yëngale réew mi ben bi ci tag moy bu mu amé ba lét ba tay njabotam sax ñooñu dañ dañ ci xeeb seen njabotam bi nga xamanteni ñom ñoko jur yar ko ba mu tollu nu meuna tollu a ko njabotam seen waajur yi mënuñu teg si moom bët ñu wax ak mom téléphone bi ci tagu moy euh, bi lolou weso dañ ko jël. ne tegal nañ ko protection policière muy kenn koo xamante ne bu doon dox kenn du ko xam léegi ñaari 4 ñoo koy andi huit. Euh, policiers ñu sécurité. non man xam nga loolu luy dalal xelu ndaw si la. parce que loolu yëpp amu ko woon. kon loolu day gën da koy gën a wan ne que yow dara mënu dal. te dont dara mënu ko dal. wala da ngaa jàpp ne am na léegi ñeneen Sénégal yu def loolu ñun porte plainte kenn protégé wu leen. non mais loolu bari na. Ah dem dans le cadre ci histoire bi ci boppam kese kese kese. mais ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ay témoin te ñu teg leen pression ñu bañ a ñu bañ a ñu bañ a ñu bañ a sedde ñu won leen xaalis ñu bañ a sedde ñu menacé leen ñu bañ sedde kenn joxu leen protection bi war bu keroog dégg naa benn journaliste wax ne ndaw borom kër gi dafa génn ñu boole ko gay ndaw ñu ko sànni xeer ba bopp bi toj ñu kan moo leen protégé tey kenn protégé wu leen parce que taxawuñu ci li nga xamante ne ñii lal complot bi nii noonu lañ bëggoon ñu taxawee loolu c'est terrible euh, ma fàttali na ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci jano bi ak euh, kii nga xam ni moo di Bassirou Diomaye fay mi nga xam ne moo jiite cadre yi nekk ci parti bi di Pastef les patriotes alors yéen cadre yi ci seen bopp moment bii ñu toll ngeen nekk ci guddi gu bët setagul te ngeen bokk ci parti Ousmane Sonko de ay cadre di ay boroomi xam-xam jàng euh, ñu xam leen bu baax a baax ci réew mi jaaxalewu leen de damay laaj rek de. <laughs> non non non je veux dire lu ngeen taxawee. parce bi est-ce amul ba mu yàgg mu nekk lu énigmatique ci seen kanam wala fu ngeen jëm wala lu ngeen nar. non xam nga parti bi moom. ñu nekk ci biir parti bi nu mu gàtt gàtt benn at rek yàgg nañ gis ne que parti bi bu mu sosoo ba léegi ba nit ñu commencé gis tànk tànk yu mu yu mu commencé doxe rek ci lañ ko commencé song. Sénégalais yi dañ koy fàtte waaye song gu gën a rëy gu gën a métti gu ñu song parti bi moo nekkoon. bi président Ousmane Sonko waxee ne député yi ni ñuy fay seen impôt bi jaaduwul jële woon ko ci document boo xam ne mu ngi woon ci site ministère économie et finance ba léegi sax jàpp naa ne boo fa demee dañ ko fekk ba dañ doon indiqué nit ñi ban document la wax leen ban page la nekk ñëpp di ko xool loolu lañ ko toppee woon jiñ ko ne yow da nga sulli ay mbootu yoo xamante ne waroo ko sulli dal di ko dàq premier acte deuxième acte pour citer deux trois rek parce que ëpp na noonu am na suñu militant boo xam dañuy def meeting mu bokkoon ci ñi koy organiser mu delluwaat këram ñu rey ko est ce que boobu ba léegi dégg nga. mooy kii de côté Kër Massar wala. Mariama Sarr yàlla na ko. Mariama Sarr way ñu faat ko way mu bàyyi fi njaboot gu gu sew goo xamante ne état toppatoowu ko boo xoolee ci boobu nguur gi sax présenté wu ñu condoléance waa Pastef noonu lañ ci noppee ba nii procès amul bu ci loolu jeexee song nañ suñu siège ak i jaasa xale yi tëb daw. bi ci mujj mooy dem nañ fi parrainage ñëpp di def seen fiche parrainage ñu dem ba ci kër suñu waajur leader. difa faqal difa bëgg a jël fiche de parrainage buñ ko waxee Sénégal kan gëmuñu. mooy Casamance. exactement dañuy wax ne loolu mënul nekk ana photo yi ana vidéo yi. oui dafa il paraît que est-ce que gendarmerie fa demoon wala la fa woon. mais gendarmerie la woon ñu dégg Aly Ngouille Ndiaye mu nekkoon ministre de l'intérieur ne gendarmerie sax amul Ziguinchor mais ñun buñ ko toppee dem ci yoon le 6 février 2019 avant cam ci biir campagne électorale bi la ñu daan gendarme Nicolas Mendy pour violation de domicile de de de la mère du président Ousmane Sonko kon cong yi yàgg nañ. ya maanaam da bëgg wax ne yàgg nañ leen a xeex. yàgg nañ ñoo xeex yàgg nañ ñoo tooñ te bii tamit beneen façon xeex la rek. 94 milliards yi tax yi nga xamante ne ñun ñoo ko découvrir def ci suñu enquête pandant huit mois ba am ci firnde yu leer bind IGE bind procureur bind OFNAC dañoo dem ba ca biir ñu bëgg ko wëlbati dugal ci assemblée nationale mu def commission d'enquête parlementaire am seetal ñi nga xamante ne ñoo ci taxoon rip bëgg a tuumal Ousmane Sonko loolu daaw rek la woon. ñu xeex ba génn ci kon loolu yàgg nañ am bu amee nag ci biir parti bi lu ñuy njëkk def mooy trouver les ressorts pour yuy permettre ñu défendre maanaam am ndëgërlaay gu tax cong gi ñuy song ak faagaagal bi yoo xamante ne mooy seen mébét bañ a te loolu moo ñu fitee ci ndimbalu sénégalais yëpp implication militant yëpp ak ci coobal suñu borom ci tànk yooyu lañ taxaw ba tey. mais yaakaar ngeen am na ñu ñuy rumandaat ne quel que soit affaire bi Ousmane Sonko dañ koy am na ñu koy rumandaat waxuma ne sénégalais yi ci seen ci ci seen majorité bi écrasante majorité sénégalais yi dañ ne Ousmane bi boo def ndànk dóor ci gaa yi. xam nga loolu ñaar ñaar ci ñaar ci ñaar la lalu. Hmm. bu ci njëkk mooy bañ am benn confiance ci justice. dem ba suñu yoonu réew nga bañ a tey ci am benn yaakaar ci kóolute bi ngay mën a jël ne booy demee ci yoon ki am dëgg dina am dëgg waaye bu fekkee ni ñëpp jàpp nañ ne bu nguur demee ci yoon mu doon loo xamante ni ñëpp xam ne ñoo nekk ci gannaaw. kon nguur mënul ñàkk loolu mën na tax sénégalais yi seen xel ñaaw na bu même bu fekkee ne dem nañ ci yoon même bu fekkee ne wax ji waxu kasaw kasaw la te fu muy mujje mooy li ñu bëgg ñoom dinañ ko am loolu moo tax sénégalais yu bari di waxee noonu waaye li gën a tax sénégalais yu bari di waxee noonu mooy posture défaitiste tamit maanaam jàpp ne que lii nii la mel kenn mënu ko xeex wala boog nga jàpp ne ñeneen ñoo ko war a xeex yow si yoon ne ko ci donte yow yaa ngi koy métti lu di ko naqarlu boo demee ci réew yi nga xamante dañu nekk ay askan yuy bañ askanu bañkat te ñëpp am loolu di ko dund bu bu bu jotee ñu war a fajal seen bopp ñoom ñëpp génnandoo kenn du xaar sa moroom du ñu xalaatee nii ndax am na ñoo xamante ne nguur gi fi nekk ñoo ñoo leen ëppoon doole foofu nootoon seen askan ani Ben Ali ani Moubarak ani Saddam Hussein ani an ani an ani kanegi kan am na bu ñoo xamante ne fii dañu jëloon seen réew noot leen ba kenn du ñemee ñemee nooy boo demoon Tunisie dañ doon wax ne ci gannaaw tunisien bu nekk nguur gi ben na mais ba ñu ñu ko mu mer xaru xaru gu sotti essence marché peuple tunisien dafa jeex franchir nañ ko ko ko sénégalais yi wax loolu euh, bàyyi ko Macky Sall mu jàpp ne loolu mu neex war na ko mën a def Ousmane Sonko parce que ñoom dañu nekkul ci posture lii warul mën a dem te ñun ñëpp ko war a bañ buñ ko defoon ñun ñëpp ñu bañandoo ko te ñun jàppee ne warul tegu ci yoon parce que buñ demee bay wax ne quelque soit nu mu demee maanaam ko Ousmane am dëgg dañ koy tëj Ousmane bañ am dëgg dañ koy tëj bu fekkee ne nag nekk nga ci réew moo xamante ne boo amee dëgg mën nañu la tëj te ñëpp jàpp ne lu normal la ñu di ko xaar ba di ko waxtaane mais ça signifie que war nañu xoolaat ban askan lañ bëgg a nekk li nga xamante ay nit nañ ko ci seen ci seen ci seen liberté ndax ko te depuis ba nañ ci lim ay yu ay figure 2012 euh, entre fin 2011 début 2012 ci bi nit ñi doon pour troisième mandat bañ am bi nit ñi doon pour dévolution monarchique bañ am bi nit ñi doon pour bàyyi bañ fi mais ñaata nit ñoo ci dee laata Macky Sall di fa falu ñeent fukk ak ñeent nit ay policiers ak ay ñoo xamante ne euh, duñu ay takk der mais ñooñu lu ñu doon xeex bu tey ñu am ko tey am lu ñuy bañ est dañoo war a bàyyi kenn nit ku ñëw ci climat boobu maanaam ci ci ci contexte boobu profito ci falu président mu gën a salfaañi ak ak yëleef doomu aadama yi nga xamante ne xeex nañ ko ba sam ko loolu jàpp naa ne benn sénégalais waru ko nangu te gëm naa ne dañu am sénégalais yoo xamante ne dinañ ci xaar seen tànk bay xeex ba seen doole yem léegi euh, euh, Diomaye Faye euh, est-ce que parfois tamit xaabaabulu leen c'est-à-dire tooñu leen Macky Sall yéen lu jëpp ngeen ne Macky la parce que ci kaddu Ousmane Sonko yi yëpp moom depuis le début suñu waxee mu ne Macky Sall la ko def est-ce que dafa am est-ce que Sonko dafa am ay ay firnde yu ko wér péng ne lii Macky Sall moo nekk ci gannaaw wala dafa wax rek sànni ci mbooy gi pour sànni Macky Sall parce que tamit soo naan nit ki moo def moo def moo def est ce que am am ngeen lu leen wóor ne lii Macky Sall moo nekk ci gannaaw. Euh, suñ Maodo bu gis nga bu fekkoon ne lii dafa xëy rek dal suñu kaw. Hmm. mën nañ nekk di wër fan la jóge mais li nga xamante ne dañ la wax ne yow joomaay fi ngay dem nii Maodo Faye nee na ma dina la fa kar def la nangam nga koy dégg di ko dégg di ko dégg ba ñu kar la fa li ngay njëkk a xalaat mooy liñ ma doon wax te ñu la koy wax information yi ñu la mos jox ci Maodo Faye nu muy jëfee rek di ko waajale jëme ci yow noonu la doon deme dangay wax ne lii liñ ma doon wax kon moo doo ko def loolu ngay njëkk jàpp bi ci tegu nga xool ne mbir mi demee Sénégal dañu jékki-jékki ñu ne ñu deuxième vague ñëw na nee ñu état d'urgence Thiès ak Dakar kenn comprendre boobu Diourbel moo ëppoon Thiès ay cas Kaolack moo ëppoon Thiès ay cas defuñu woon état d'urgence ak couvre-feu Kaolack defuñu ko Diourbel ñu def ko Dakar ak Thiès kese toog seen bàyyi sénégalais yi nooyal leen ba sénégalais yi fu ñu toog fu fu fu takkusaan jotee ku nekk di xool naka ngay def ba gaaw a egg sa kër pour couvre-feu bañ la fekk ci ci biti loolu doyul ñu commencé. loolu bu jotee Ousmane Sonko. mais loo loolu la ñu waajaloo loolu la ñu waajalee ko bii nag parce que tey ku nekk mënatoo génn ci guddi di xeex wala di def yenn yi dañuy jàpp sénégalais yi nooyal leen ci loolu bàyyi sénégalais yi ñu tere ñu liggéey guddi ñi ñu tere leen ñu ñibbi seen kër yi. ñu bàyyi nit ñi di continuer di dugg ci biir oto yi wàññi ci wàññi ñu seen chargement bàyyi xale yi ñu continuer dem ci classe yi di nekk di toog ak ñaar ak ñett ci table banc yi bàyyi nit ñi ñu dem ci jàngo yeeg ci jàkk yi bàyyi nit ñi dem ci marché yi ñu def seen couvre-feu loo bëgg a def tey ne manifestation ñu ne la couvre-feu bëgg manifestation bi nga xamante ne waa FRAPP ak Pastef Dakar waajoon nañ ko lan lañ ko tere couvre-feu bi ak arrêté d'interdiction bi fi nekk bi liy xewee Antoine Diome dafa génnaat dem ministère de de de la santé ne yokkaat nañu couvre-feu bi ak leneen ak leneen mais li ci tegu mu ci li ci tegu mooy lu ñu lay tuumal mu am ñu la koy miimal wala waxuloo ci dina am ñoo xam te ne sax seen xel mën na tey ñaar waaye yow ndeyu bi gi nag boo demee ba tuuma googu ci say wax yàlla nattu la nga nangu ne li ñu lay wax nii am nga loo ci laale. lu am fu mu ko waxee. mais président Macky Sall ba ci RFI keroog. waaw dafa ne moom yooyu du ci dugg parce que nee na sont vraiment pire adversaire en politique c'est très bas yooyu du ci dugg quoi. wax ñetti wax la. d'après d'après li wax. ñetti wax la bi ci njëkk mooy ki nga xamante kii mu dal nii mooy sama pire adversaire politique. oui maanaam kon moom adversaire politique am yi dafa am yu baax am yu tane am yu bon. ah parce que le mot pire mooy bu bon. waaw pire waaw pire vraiment c'est un peu. c'est xaw na doy waar tuuti bu bu dee ci déggin boobu la. non déggin boobu rek lañ ci mën a am. parce que am nay adversaire am na yi ci baax kon ñi ko sonalul la am na ñi ko xaw a sonal tuuti waaye mën na mën na waxtaan ak ñoom am na ñoo xamante ne ñoom moom daanaka noonu moo nekk seen diggante te kooku noonu la caractériser Ousmane Sonko kenn waxu ko ne Ousmane Sonko ngi nii il se réclame du pire du meilleur ou du moins moom moo jël Ousmane Sonko peinture ko ne mooy adversaire am gu yées benn mu nangu ne complot la parce que ne man am naa jot def leneen lu dul di complot kon mom ci boppam nangu na ne li xew ni complot la. non non non non ah. mais parce que parce qu'il a entendu le mot complot. est-ce que peut-être non peut-être mom mënuñu ko wax est-ce que président de la république ci fu mu toll. dafa war lu mu dégg mu jëfee ko wala mu waxé ko non mom day assumer ses propos. yo à travers ses propos da ngeen ci déceler né mom accepté nako mais bien sûr implicitement. mais ko wax fay ko wax fay gis nga bi mbiru ñëkkee xew bo sétlo kenn ci wa APR nangu ci won addu semaine bi lañ commencé communiquer. ndax ñoom dañuy jotoon consigne ci moom ci boppam président Macky Sall ne affaire bi nañ ko jàppee na affaire privée la diggante Sonko la ak Adji Sarr suñu yoon ne ko ci pourtant bu ñu defee loolu terewul woon ñu làq Adji Sarr mbokkam yi ay mbokkam yi ba ñu toll nii mënuñu woon gis Adji Sarr ensuite ñu noppi deux semaines waxuñu ci ñun ñu jàpp suñu communication di wone fi mbir mi lajjee di wone fi mbir mi lajjee ba Sénégalais yëpp xam ne lii lii Macky Sall doon fexalee sonk raje ko doon ko fexel di jéem a nangu fiches de parrainage am doon ko fexel ba rey ba ba ay ba ñu rey militant Sonko doon ko fexel ba ñu attaqué siège am doon ko fexel ci 94 milliards noonu la bàyyeewul te du Sonko la commencé ndax def na ko ñeneen ba am lu ma bëgg. Sénégalais bi ñu xamee loolu ñu obligé génnaat moom moo ci njëkk bu mu génnee nii la ko waxee kenn tegu ko pistole kenn saxalu ko lem moom moo toog gis na que dafa war a communiquer aborder question bi wax ci lu mu wax nit nag loo wax. te doon kilifa doon mukalaf jiite lu toll ni réew dañuy jàpp ne sa wax jooju lu ñu la mën a jàppal la. man bamtuwaat kon li yow fu ma la déggee li président wax ci toi wax ko RFI ne euh, par exemple ay problème complot du ma dugg ci ay problème complot le mot complot moo leen déranger. non dafa ne. oui lii xew nii dal sama. Euh, pire adversaire sama pire adversaire. maanaam kenn ku nekk ci ku ku ku ku ku. ku yées ci ñi may ñi may xëccool. li ko dal ni oui. man du loo xamante ne moom laa moom laa koy ñaanal. oui mais mu ne man du ma am naa jotul. leen am na yeneen lu ma def waaw lu dul di complot maanaam kon dafa jàpp ne moom complot la. di ci seetal boppam. ah je comprends xam naa fi ngay waxee. exactement léegi léegi moom. da nga jàpp da nga jàpp ne kon ci biir wax ji da nga ciy dégg ne Macky Sall accepté na complot am merci beaucoup de bu bokk ci mu bañ cee bokk. exactement ok léegi ben, complot complot nag. maa ngi doog a xam fi ngay waxee bu baax. exactement complot nag tey boo jëlaatee wax jooju nga delluwaat ko ci gannaaw ci pire adversaire kan moo am intérêt wu comploter contre son pire adversaire lu dul ku ko jàppee pire adversaire wala ñu koy jàppal tànk. autrement dit. autrement dit Macky Sall kese moo am intérêt wu complot complot boobu mu nangu ne moo am ci ci ci ci ci jëmale ko ci Ousmane Sonko pour am lu mu bëgg ni mu ni mu ko amee woon ba faagaagal Khalifa Sall ni mu ko amee woon ba faagaagal Karim Wade te complot bi doon moom la ak ñi mu ko sant ñoo ko def ok euh, ba léegi ñu ngi ci jano bi fii ci 98 point 5 ci Sud FM seen rajo euh, ñu toog fi nag ak Bassirou Diomaye Fay mi nga xam ne mi ngi bokk ci parti bu Ousmane Sonko mais également euh, nekk tamit ci cadre yi nekk ci Pastef maanaam ci parti boobu ba tey Ousmane Sonko information laa la jox mais xam naa ne yëg nga ko ah Ziguinchor foofu démb dañu xëy police ñëw fan yi di di di génne pneu yi pneu yi di dajale di yóbbu di denc pneu yi ci mbedd mi quoi vulgarisateur yi di nangu mais pourquoi cette année lan moo tax ñu ba noppi euh, administre maire yi baag ñëpp daal ba noppi tam tere tamit ku jaay essence par détail en tout cas Ziguinchor moom ramassé yëpp tey ci suba ci sama journal bi ñu ngay en tout cas ñu ngay fab pneu yi di nëbbu est-ce que du yéen gouvernement bi avec ses renseignements dañoo xam ne yéen da ngeen a taal dëkk bi c'est juste une une question. non ñun ñu benn dëkk. Euh, li xew nii mun la ko waxee boo gisee ñi ci am lu leen métti yëpp te fas yéene xeex dañ lay wax ne du Ousmane sonk la ñuy xeex. fas xeex nga wax de. waaw dañu wax ne résistance mooy loolu mooy bañ dañu ne du Ousmane sonk moo ci am solo waaye nag dañuy salfaañi ak ak yelleefu doomu aadama ak ak démocratie bi nga xamante ne xeex nañ ko ay ati ati ngi nii nit ñëw bëgg ko salfaañi loolu la ñuy bañ moo tax. du waa Pastef kese nga gis opposition yi yu muy bëri ay divergence yépp boo xoolee ci bii yoon loolu seen divergence teg nañ ko fee mel ni seen mbiru bopp la moo tax nga gis opposition parlementaire bi nu mu comporté wu ñi nga xamante ne ñooy les mouvement citoyens euh, Y'en a marre euh, FRAPP coalition activiste yi coalition le peuple ak ñeneen ñëpp noonu lañ ko jàppee jàpp ne dañu war a xeex parce que bu ñu xeexul lii boo moytul dinañ toog seetaan ba li am ci yeneen dëkk yi maanaam nit ñëw falu bañatee faa jóge ba jox jóge fa jox doomam noot ñëpp boo moytul moo fi am te noonu la ci universitaires yi nga xamante ni amuñu coloration politique toogee lu mat téeméere gi ñaar ay nit ñuy jàng ba seen ba dem ci fi njàngale gën a kawe def seen manifeste pour dénoncer ni àq ak yelleef fi doomu aadam yi di deltoo gannaaw ci gannaaw noonu la société civile à travers cinq organisations yu ci gën a am doole tey que muy RADDHO que muy la Ligue sénégalaise des droits de l'homme que muy Afrikajom que muy le forum civil social sénégalais ak ñeneen ñoo xam te ne mën na am sax fàtte naa ak Amnesty International bu Sénégal bindee ci ko def communiqué ci affaire Ousmane Sonko pour dénoncer li nga xamante ne moo fi xew kon liy xew nii nit ñi di jóg di gën di xeex du mbirum passif kese nit ñi nag bu ñu dee xeex li ñuy njëkk def mooy dañu bëgg manifester wane marche pacifique wane ni li ñuy def ni ànduñu ci soit dañ koy may espace de liberté mu exprimer wu wala mu obligé fippu te loolu yëpp préparation bu ñu def ci gannaaw andi ay couvre-feu tey boo demee tey bëgg a manifester ci yeneen région yi kenn du la tere parce que affaire bi eggul foofu mais puisque contestation yi ci gën a vif diggante Dakar ak Thiès lañu nekk foofu lañ ko yemalee sénégalais yi nag ñoo toog ba xam ne lii raam ci ñag wala jëm Macky Sall mënul ñëw ci Sénégal ñu fekk ay nit di xeex di xeex di xeex di xeex ba Sénégal nekk vitrine démocratique ba moom laata muy fallu. doon xeexal vitrine démocratique boobu moo taxoon ay doomu aadama seen bakkan rot ci mu ñëw fallu ci condition yooyu loolu rek waroon na ko doy sas pour mu gën a liggéey luy jëmale démocratie Sénégal ci kanam première chose bu mu wax mooy man sama objectif mooy dinaa jël opposition Sénégal dinaa ko réduire à sa plus simple expression maanaam dinaa noot opposition bi seen baat kenn dootu ko dégg ci kaw est-ce que démocrate ak koo ku xam liy démocratie noonu la war a jëfe jël ko def ko objectif am depuis traque des biens mal acquis ñi nga xamante ne ñu woon ci liste ñi ñu doon traqué ci bien mal acquis yi ana ñu am na ci nekk ay ministre tey kenn lañ ci soxla woon jàpp ne ko rap tëj ko trois ans génne ko ci dëkk bi ci condition yu kenn xamul saa yu mosaan wax damay ñëwaat ñu ne ko waaw mais boo ñëwee li nga ñu yoral nga fay ñu ko mais tant que mu ngi toog foofu kon bu fekkee ne yoral na Sénégal dara Sénégal yoonam nekku ci ñu toog ñu jóge ci xalifa Sall commencé def marche ma kii euh, tournée politique am ñu ne ko da ngay arrêté sa tournée politique mu bañ tournée politique bu mu defoon Tamba mu réussir ci la waxe woon ci la ko ci lañ ko convoqué commencé indi affaire caisse d'avance gis nga lii di xew nii man xamoon naa ne attaque dina am xaw moon nag ban nature lay nekk parce que bi ñu defee suñu téléthon yi suñu nemee ko tour bi. seen seen cent vingt cinq millions yi. Sénégalais yi jël seen xaalis di parce que interprétation boobu lecture boobu lañ ci war a am. sénégalais yi jël seen xaalis di financer départ Macky Sall waaye sénégalais yi jël seen xaalis tamit di ko doolale ki nga xamante ne moom lañ bëgg mu remplacer Macky Sall boobu ci guddi gi deux heures du matin ci boobu la euh, ministre de l' intérieur génne communiqué di menacer Pastef solution ñëpp soofantal ko ñëpp ñàkkal ko fayda mu xam ne bii du dox ñu dal di accélérer affaire bi jël benn innocente boo xamante ne jigéen ñi lu ñuy xeex ci àq ak yelleef yëpp pour jigéen ñi am ni ñu leen di protéger ñu jël ko di ko ñàkkalee fayda di ko salfaañ. est-ce que bu leen considéré woon ma àbb sax benn ci jargon journaliste yi lii xew nii am na wala amul loolu yàlla rek a xam ak ñuy atte ji ëllëg ñoo xam est-ce que mënuñu ko a considéré comme un fait divers banal ku nekk dem sa yoon parce que même bu fekkee Ousmane Sonko député la am na kër ci réew mi mais est-ce que euh, aura bi mu am yëpp dafa am loolu dama ko àbbu ci Sénégal yi parce que dafa ñuy wax ne ba jusque am na ñuy wax ne est-ce que li jar na ñuy ñuy mobiliser ay gendarmerie ay police hein ay ay matériel militaire euh, police sécurité hein, est-ce que est-ce que est-ce que jar na li, fi réew mi toll ñu bloqué lépp ndax lii rek jar na ko. non xam nga mënatuñu wax am Sénégalais ñu gisee non non non ñu wax ñu wax loolu di ko di ko neenal mënu mënuñu ko xam lan mo tax. Mhm. Euh, parce que ci kumu dal. du n'importe qui. wa loolu la wax da bien que même bon bu dalon ci keneen aussi mën nañ ko gérer autrement. non mais justement. c'est que ñaari mbir ñoo am d'abord ci ku mu dal du ko tuuti. am na lu mu tekki ci réew mi. dafa am lu ko ko may. oui mais am na ñeneen am bi ñu am daraja gu ay temps yoo xam ni ba au nord du ci jamono Ablaye Wade ñu moom boo ko gëm-gëmaleeg Macky ci mbirum démocratie moom xam naa waa PDS dinañ am lu leen métti ndax du yàlla ak yàlli la Ablaye Wade nu mu bu d'accordul ak yow tamit dina xeex pour yow li nga d'accordul noonu nga mën ko waxal sa bopp noonu la Abdoulaye Wade mel kii nii c'est l'exact contraire bëggul dégg kenn ku ko critiquer il prend tout sur lui ba pare jàpp ne képp ku mu ëpp dool dafa war a jaar sa kaw écrasé la donc Abdoulaye Wade doo ko gëm-gëmale ak Macky non non gëm-gëmale léegi maa ngi maa ngi ñëw nag ci sa question bi. oui. Euh, lii du simple fait divers. ñiy waxe noonu am na fu ñu leen mën a comprendre parce que réew mi am na leneen lu mu taloon. voilà ci pandémie bi yow mënuloo am réew moo xam ne feebar gën a garaaw nit ñi di gën di dee ñi ñu recensé ak ñi ñu recensé wul man xam naa ñu bëri ñoo xam te bu buñ ma ma demee jaale ji ñu wax ma ne lii moo leen faat man ragal naa ne Covid la te kenn décompté wu leen te loolu bëri na fa mu xew certainement ci biir Sénégal. économie bi lompoñ njàng mu demewul noonu tey am nañu lu mat presque euh, des milliers d'étudiants yoo xam te ne kenn orienté wu leen c'est-à-dire mosuñu leen sax bu ñu amee bac jël leen yóbbu leen ci université ni privé ni public ñu ngi toog seen kër yi am na ñoo xam te ñu ngi leen doon fayal ci ay école laata pay bi di jeex école yooyu dàq nañu leen kon Sénégal bëri na loo xamante ne waroon na ko mën a toppatoo mais boo amee président boo xamante ne amul grandeur waaye lu ko soxal mooy xool naka la faagaagalee adversaire politique am bëggul jàmmarloo kenn koo xamante ne euh, xam na ne kii mën na ko créer problème ci ni koy askan yi jëlee dugal ko seen xol bu boobaa li amee waye lu lu ñu waroon mën a la sax bu fekkoon lu am la. waye am ah, motax mané ma ne wala amul. motax mané amna wala amul. mais est-ce que jaroon na mais mais justement puisque président bu mel non lañ am nak li mettel la nit ñi la ci nit ñi am déception la ci nit ñi am parce que du fii la xaar ñuy jité ñu nek ci ay complot yo xamante Sénégalais vaccin ñi ñu di waxtane ni sax mbir mi def ko sul et c'est regrettable c'est une très mauvaise publicité pour la démocratie benen affaire bi nak moy ñi nga xamante dañu dañ mais li est-ce que jar na c'est que dañuy xamul enjeu yi xëy wala mesure wuñu enjeu yi parce que enjeu yi na rek président Ousmane Sonko dem ci affaire bi dem tribunal ñu jox ko ñu jox ko deug wala ñu bañ ko jox deug enjeu du lool enjeu yi dafa am lo xamantene dafa nek di sampu Sénégal ñu toog diko sétal président bo xamantene dafa ñew ci contexte laata ñukoy fal mu ne bu ma falé 5 ans lay def damay wàññi sam mandat dem taxaw fu ne wax ko muy njiit. muy wax nako France. exactement nek référence bo xamantene ñun dañuy jàpp ne bu ko doon tànn dañoo tànn ci kenn ci ñu gën ci réew mi parce que bu ñu dee tànn njiit on est supposé avoir choisi le meilleur d'entre nous. Mhm. mu wax wax waxati waxeet mu mel ne dérange wul kenn lu mu waxoon yëpp mu teg ko ne def leneen ñëwaat ci référendum bi ne man affaire mandat bi verrouillé naa ko problème délai bi rek laa doon réglé wax ko ay ñoñam wax ko ki nga xamante ne moo ko bind ne ñi koy lire dafa mel ne liiruñu constitution bi répété je dis nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs bamtu ko ñetti yoon moom wax la ci làmmiñ boppam ne maa ko vérifié ku wax baat bokay koy jeex na gis nga nak bu mu ñëwaatee 31 décembre déjà 31 décembre 2018 lan la waxoon dafa né man amna mandat 7 ans ba paré bu ma sénégalais yi waté ci 2019 bi ñuy dem dénkaat ma damay daal di def sept ans plus cinq ans muy douze il faudra partir lol c'est dafa lèr mu jóge fa nak bu mu faloo ba pare delluwaat ci même bërëb ba ñu laajaat ko même laaj bi lu tax tontuwul même tontu bi mu dal di commencé andi njuuj njaaj ne duma ci répondre waaw duma ci répondre déet puisque kàddum ci mais il a déjà répondu non non non non parce que je ne répondrai ni oui ni non waxoon non c'est fini pour moi moo gënoon gàtt yemu ca mu wax ay ñoñam ñëpp attention bu ci kenn lu adooti ba fan yi avant lii di lan nga say commencé de toute façon conseil décidé de façon conseil constitutionnel décidé mais est-ce que ñun waxam ak interprétation bu wax ne moom lañ bëgg am moom lu mu jaay bu référendum bi loolu yëpp dafa amatul sens ay sax mu am ñoo xam dañu commencé wax ak moom la ba 2035 imagine nu grave ça signifie que nekkatul sax question troisième mandat waaye moom mu ngi xalaat dès que ñu jox ko troisième mandat naka lay sotelee est-ce que de la limitation des mandats ko def amaguñ ci benn preuve c'est vrai yu ñu posé ay loolu c'est c'est verbal li ko ba xam moo tax ma fi desee jar na xuloo bi yëpp parce que bu ko jarul woon du nekk ci ay complot bu ko jarul woon du nekk di def yu bëri yoo xamante ne mu ngi koy def ci loo xamante ne dafay dafay démocratie yow boo xamee ne da ngay dem dans quatre ans lan moo war a tax ngay traqué ay opposants ñi nga xamante ne mënoo leen corrompre par des postes de sinécure nga di leen traqué ñi nga xamante mën nga leen corrompre nga di leen jël di leen yóbbu ci poste yoo xamante ñoom ci seen bopp ñoo ko bañaloon seen bopp ba pare ngay wax ne de façon ñun ñi wu tey on fait quatre vingt cinq pour cent de l' électorat comme si ñu leen voté loon yéen ngeen leen jënd signé ak ñoom contrat boo xamante abadan daayiman bu Macky Sall lu mu nekk di samp fu mu toll nii mooy benn clan wala dynastie pétrogazière boo xamante ne ñu fi jóge parce que gis nañu ressources naturelles yoo xamante ne ko won gannaaw perspective bu bàyyi nguur dem mener une vie normal xam na après le pouvoir y a vie loolu Macky Sall ci boppam def ko intégré wul ah te posé benn act boo xamante ne ça va dans le sens de pacifier le Sénégal dem ci Sénégal gu dal mu def nu mu ci war a def génn par grande porte non ba léegi ci ay règlement de compte lay nekk ay petit complot yoo xamante ne amul benn président bu diñ bëgg a sortir par la grande porte de l'histoire mooy doxale noonu. lan ngeen yaakaar ci justice bi fii ñu toll nii tembe comme yéen wóoruwu leen Macky Sall lu wax ngeen ne moma est-ce que daf dafay impliqué ne même justice bi bon am na ñu ko wax man waxuma ko mais dañu wax dañ leen instrumentaliser justice bi dafa nekk à deux vitesses nangam nangam dañu amuk pété est-ce que yéen ñi ay cadre jàng xam ni yëf yi di doxee man mbooloo moom ngelaw loolu mën na leen a yóbbaale. wala da ngeen du ngelaw gu ñu yóbbaale c'est que yi di wax yooyu tamit dof du ay duñu ay dof wala wala ñu wala wala ñu nekk ñoo xamante ne ñun ñoo leen gën a jàng ñu ñu gën a jàng fopp ñoo koy wax. ñi nga xamante ne ñoo tolloog ñun njàng ñu ngi koy wax ñi nga xamante ne ñoo ñu yees njàng waaye ñooñu gën ñoo mën a seetlu di déglu débat di déglu rajo di seetaan débat yëpp xam li ñëpp xam ñoo koy wax ñenn ñi dund ko sax ci tribunaux yi balaa ngay gën a am découragement ci justice Sénégal nga dem toog ak avocat yi ñi nga xamante ni ñoom ñoo fay liggéey guddeek bi ci suba ak ngoon ñu xamante bu baax seen biir ñoom ñoo lay wax ne man fii laay liggéey waaye gëw ma gëw ma justice Sénégal loolu sénégalais bu toog wéet ne je crois à la justice de mon pays il faut la justice faire son travail rek da nga commencé soit da nga commencé am loo fàtte wala seetlu woo ko wala nga bëgg justice nekk bras armé comme nu mu ko mosaana nekke mais Pour nga ne justice bu bu bu am doole gum war am ci biir un acte d'interdiction de sortie du territoire à Ousmane Ngom président de la République jël Ousmane Ngom duggal ko ci avion sachant qu'il est interdit de sortir du territoire de yóbbu ko mu voyager justice boobu lañ am justice boobu lan la représente en termes de contre-pouvoir tey ñun bu ñu defee suñu problème 94 milliards est-ce que dégg nga ci procureur addu ci bële déggoo ko foofu lañ ko mujj bàyyi dem ci juge d'instruction lan lañ ci wax amuñu intérêt à agir parce que on n'a rien perdu mais l'action publique reste là parce que dërëmu Sénégal la du mu la tere nga saytu même boo jàppee ne pour Ousmane Sonko euh, amul intérêt à agir yow tu as connaissance des faits délictuels ou supposés infraction mais lan moo la tere nga càmbar ko parce que 94 milliards du caaxaan mais ba tey fourage dal di xidal ak yeneen ak yeneen analyste vingt deux personnes ñu waxoon ne ñoom la ñuy topp ci traque des biens mal ak ki ni mu la ko waxee ana Omar Sarr ministre de de de l' énergie de de je quoi ani ñeneen ñi ñu ngi ci déggoon yëpp ñëpp Macky Sall xëcc na leen ci wetam justice boobu leen doon topp ba tëj ci doomu jàmbur trois ans justice boobu est ce que moom yóbbu ko kasu est ce que moom justice boobu moo supervisé ñu ñëw ne ko ropet ci suñu kaso guñ ko tëjoon yóbbu ko Qatar ana luñ luñ ko doon toppee ban dërëm la ci fay. justice bi nga xamantene bi maître contractuel yi amé problème ak Serigne Mbaye cham dem cour suprême gagné président de la république mo len wax mo wax Serigne Mbaye cham bul top décision cour suprême bi justice bobu anamu sénégalais yi amul benn ngelaw gu yobale kenn waaye lu ne fàng jaruta sénégalais yépp xam ne justice Sénégal bu ñu am justice bu normalu la mu am ci ay juges yoo xamantene nag du ñëpp am na juges yoo xamantene c'est des juges vertueux am na juges yoo xamantene c'est des juges incorruptibles waaye corporation boo dem bi ma ci bokk ak bu keneen bokk mu ñoo yem am nay nit ñoo xamante ne am nañ faiblesse soit psychologique il cède à la pression soit wóolu ñu yàlla parce jàpp nañ seen carrière ci loxo nit la nekk soit am na fu ñu leen téye ba lu leen defloo duñ ko mën a bañ ñooñu lépp luy taal réew mi tant que ñoom jàpp nañ ni dinañ sowe dañ koy def tant que ñi leen koy sant mooy seen supérieur hiérarchie dañ ko supérieur dañ koy def justice boobu nag c'est une justice aux ordres te bi ñu euh, le référendum gars on va avoir plus d'indépendance de la justice bu voté référendum bi semaine bi ci topp boobu la union des magistrats du Sénégal génn pour décréer l'absence d'indépendance de la justice au Sénégal ana conclusion commission nationale de réforme des institutions bi Macky Sall santaane woon li ñu waxoon loolu la def ci justice bi lan lañ ci def dara te pourtant suñu xaalis lañ jël jox ay doomu Sénégal ñuy xaar seen tànk tubéy ak coono gu métti dem déglu sénégalais yépp ban réew lañ bëgg a jox euh, lañ bëgg am Sénégal à partir de de année bu ñu ko doon def jëmale ko ci réew mi nga xam te ne mën nañ tabax ay fondement état de droit bu solide jox leen seen xaalis ñu jël seen temps def seen fora partout au Sénégal tënk seen assise nationale sous la direction de l'éminent Mokhtar Mbow ak des professeurs d'université ak d'autres personnes de la société civile lan moo ci lan lañ ci daf ko jël ne lu ma ci arrangé rek lay jël waxul ne luy arrangé Sénégal de moom lu ko arrangé moom maanaam luy tax ne moom danaa seet li ma ci li ma ci mën a signé ma signé ko li ci des ma maanaam lu ko arrangé kon seetul lu arrangé Sénégal kooku noonu mënul nekk ci kaw réew ba pare di di dem violence bu muy demee ci xalifa procès di Sall dañuy salfaañi ak ak yëleefam yépp bu ñu dem CEDEAO CEDEAO condamné ko dès que la CEDEAO a sorti son arrêt sur la violation de ses conditions de détention ndax l'absence d'assistance d'un avocat toute la procédure moom moo njëkk a génne lu mu bëgg a def kenn mënu ko tere mu def ko fan lañ ci mujje fii d'accord est-ce que euh, d'accord euh, ci euh, Bassirou Diomaye Faye ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal ci kàddu yooyu la waaye nag ba léegi ñu ngi ci émission bi dafa am ci discours Ousmane Sonko ay luñ ci mën a luñ mën a décortiquer ay yu bëree bëri hmm. suñu suñu xoolee parce que bu ñu la jàngalee discours parfois ay contraste parfois mu am yoo xam ni dañ ci mën a jëm mais ci discours bi dafa dafa tudd plus de trois ou quatre fois mu mu sargal gendarmerie en même temps ci même moment yooyu ci même discours am bi mu joxañ baaraam procureur te ñaar yooyu sore wu na ban ban lecture nga am foofu. non sori nañ parce que gendarmerie. non gendarmerie non. non non les mais daf leen a sargal. non c'est plus que ça c'est plus que ça franchement. te man li ma seetlu suñu engagement politique naa la jox rek quelques firnde gendarmerie euh, man dama leen côtoyé ci kaaw dossier Ndingler buñ fa intervenir dafa am ñi nekkoon ci dossier yi génnoon def benn interview jam leen baaramu tuuma automatiquement dañu diligente enquête pour xam est-ce que lu ñuy tuumal gendarmerie noonu dafa am ay nit yu nekk ci biir gendarmerie yu doxalee noonu parce que c'est un corps qui est obsédé par son image bu jàpp institution la que ñi fi nek amul kenn ko xamantene ne da nga ko war a gàkkal laata ngay def de ce point de vue là duñ ci transiger kenn du nguur du keneen. manam ils font convenablement leur travail ils sont sérieux. non franchement sérieux boobu mënu loko bañ mënu lo lañ ko bañ reconnaître benen dossier moy fini dafa dafa may suñu ñent ndaw ñoo xamantene buñ joggé ci jotone am fi di ñibi mhm. ñu ngi leen fekk ci arrêt bi ay nit ay gendarme gis leen nee leen yéen ci marché bi ngeen jógee embarqué leen yóbbu ci gendarmerie Wakam mhm. benn gendarme bu zélé suñu futti leen dóor leen ba ñu ba ñu ne nem ba seen ndigg li diggu gannaaw yi tër gën sumi leen foto leen sotti leen ndox mu sedd loolu du gendarmerie en tant que institution moo organisé loolu ma koy mu koy superviser bu ñëwee ñu won ñu ko ñu ànd ak avocat dañ dem gis commandant bi commandant bi ànd ak suñu avocat dem ci grille booy sumee ko ñu gis ko automatiquement dafa woo ku ko def ne dina jël les mesures disciplinaires qu'il faut parce que lii du lu mu war a def jour boobu la entendre booy yi amul lenn lu ñu leen di toppee ñu libéré leen donc corps boobu c'est un corps d'élite qui tient à son image et qui la soigne sur le terrain ànd ci professionnalisme boo xamante ne boo leen sargalul tamit bu bësu bu bësu duut leen baaramu tuuma jotee doo doo ko mën a def parce que objectivité mooy bu nit defee lu mu war a def nga ne nga ne ko nga nga jaajëfal ko uh-huh. bu mu defee lu mu war a def ci réew mi nga xam te ñëpp ko bokk nga ne ko li nga def ni waruloo ko def uh-huh. moo tax mënul bañ a sargal jaajëfal gendarmerie ak yenn force de l'ordre parce que la police aussi am na loo xamante ne remarqué nañ ko dénoncé nañ ko def nañ communiqué de mime de menacer mais on maintient luñ luñ leen tuumal cela ne veut pas dire que tous les policiers sont comme ça pour ñun tamit l'essentiel de la police ils sont en train de faire un excellent travail par contre li ñu gis démb ci buntu président Ousmane Sonko lool luy gakkal image police la ñëw andi sa van garé ko à deux à 2 mètres de de de de de euh, de la maison d'un leader politique je ne parle même pas du fait que nous barricade tout le coin boy du lay fo jëm Ousmane Sonko quand même à ce que je il est présumé innocent dañ ko tout tuuma rek kenn waxagul ne kenn kenn mënagul wax ne yoon jàpp ne ko def donc il garde la liberté. présomption d'innocence mais boo amee présomption d'innocence man droit yi ma am yépp nit ñëw seet si ma te kenn du ko ne fan ngay jëm kenn barricade wul sama kër c'est les mêmes droits et les mêmes prérogatives la au nom de quoi ñu war a andi seen seen oto équipé ko de dispositifs de surveillance et d'écoute De brouiller les vidéos de surveillance de sa maison di intercepter communication lol dafa ruslu et c'est pas à cela que doit servir doivent servir les corps non non ni ko président Ousmane Sonko waxe dem c'est excellent mais nagn ko dem dans un contexte de terrorisme nañ ko dem jëmele foofu ci contexte bi nga xamante insécurité amna ci yenn zone yi ko dem yóbbul ko mais pourquoi mobiliser autant d'arsenal a un véhicule d'écoute téléphonique de la police Il ne ko fa fan ñu am ay altercation ñuy photo sax agent yi nga xamante ils sont dédiés à ces tâches là ça signifie qu'on les met dans une situation d'inconfort couverture pour def seen qui dootuñ ko defati et c'est pas comme ça qu'un corps de lutte doit fonctionner mais nous ñoo wara bañ ñi nga xamantene dañ ñuy police wala armée ci parce que ces forces de l'ordre là elles doivent être citoyennes et être à côté du peuple bu ñu sentir ni que askan bi lii mooy seen jëmukaay. comme comme mais comme mais attention bu fekkente ne jàpp nañ ne constitution bi Macky Sall mooy premier militaire du <laughs> wala général du pays est force de l'ordre yëpp bu fekkente ne jo ndegam jox na leen ko waxuma ne moom leen jox ndigal mais est-ce que ñu am nañ indépendance boobu aussi bien que gendarmerie moom rafetlu nañ ñu bare bari seen liggéey mais bon. est-ce foofu tam amul lëndëm lëndëm. non xam nga lépp ci ça dépend ci carrière ku nekk ci am na loo xamante ne ki nekk ci ko bañee. Mhm. du wàccee ordre yi. li ñu mën mooy defoon naa la tel poste léegi dem lay changer mais na la changé? na la changé. c'est que un fonctionnaire de l'État quel que soit corps bu mu bokk bu commencé xalaat ne rek dafa war a jëfee jëm ci fi nga xamante ne moo dul yoon ndax sant na ko ko te laluwul ci lenn lu dul dafay ragal avancement am ñu gàkkal ko gëm yàlla gi des na te en état da ngay dem États-Unis président des États-Unis le président le plus puissant des États-Unis day war a génn garde corps am ne ko préposé sécurité bi mënuloo génn boo waxee ko c'est les procédures point parce que day jàpp ne du président moko fa teg États-Unis moko fa teg pour muy watul États-Unis kaaraange chef de l'État bu chef de l'État bëggee wàcc yoon googu rek mom day def lu mu wara def fa lay yem. d'accord légui suppose léegi léegi mën nañoo euh euh légui tegg nañu ci gis-gin tegg nañu kirayu par exemple Ousmane Sonko. léegi lu ci def kon tribunal. non xam naa lañ koy teg parce que. oui mais mais kon lañu ko teggee parce que. waaw buñ que bien que comme émission bi am na waxtu wuñ ko defee d' accord amul problème te ñu ngi ci bisu àjjuma bi nga xam ne sax xam nañ dañ koy teggi parce que yaakaar naa ne boog dañ koy teggi. Mm-hmm. parce que député yi ma gis tey. ak ni ma la gisee seen majorité bi yéen yéen leen majorité mécanique <laughs> xam nga loolu moom. loolu moom waaw d'accord naa ci yow. waaw <laughs> comme mais dañ koy teggi buñ ko ah. teggee tribunal lañ jëm waaw buñ ko teggee tribunal lañ jëm mais il refuse de répondre oui parce que moom dafa cohérent depuis le départ bi mbir mi xewee dañ ko andil convocation mhm. jël maraw ki malaanu kiiraayam teg ko fay andil ko convocation mhm. mu ne leen man dama am immunité parlementaire waru leen ma mën a convoqué kon bàyyi leen ba ngeen ba sama malaanu kiiraay boobu ñu topp procédure bi pour summi ko bu ñu toppee procédure bi ba summi ko man dinaa dem wuyu ji bu fekkee ne dañ ko def dix heures ma def ko dix heures cinq mais ñoom ñu nekk di baral mbir mi ba lépp luñ ci war a def defuñu ko procédure bi toppuñu ko mu ne kon li ngeen di def nii bu fekkee ne procédure ngeen war a topp pour summi sama malaanu kiiraay te topp leen procédure boobu lu ngeen mën di def man damay jàppale ko sumuwi leen sama malaanu kiiraay parce que ak yelleefu aadama tamit buñ ko lalee si procédure même nit boko fekkone tay yalla yàlla bu mos am muy rendi nit nga fekk ko paaka gis le filmé duñu la neex nga koy yóbboo ci yoon te ngay top procédure parce que ñun ñoo charte ñoo nangone suñu charte réew non lay doxé té fepp po dem dafay am ay charte mhm. donc bo topul charte yoyu résultat bi nga mëna am koko mëna considérer né même bo jàppee ne résultat bi am résultat bi baaxul mu continuer ci nek en phase avec lui topp leen procédure bi def leen lu leen neex sama procédure demul léegi li ngeen mën a def nag mooy lu mu wax Macky Sall bu fekkee ne da bëgg koo liquider di nga taxal sa dinga nga taxal sa sa sa loxo waaye doo ko sant ay nit ñoo xamante ne da ngay làqu si seen gannaaw ñu bañ a respecter procédure parce que ñoom ñoo nekk majorité def lu leen neex loolu du lu mën a dem. waa léegi bu bu ko bu ko yoon wooyee na ko ñëwal moom mu ne. dañoo salfaañe assemblée nationale ci commission ad bi ni waroon a tëdd am na sax ñu démissionné tekk seen ndombay tànk yooyu y a problème parce que koo xam a korom bi mat na wala matul mm, y a un problème seen loi yi boobu matul léegi su lànkee ne du dem nguur gi bu ñu utiliser force dem jëli ko nag c'est juste une éventualité ah, c'est une très forte probabilité même parce que ñoom noonu lañ mos di doxale Macky Sall adversaire politique am ñaar la ci xam liquidation mm-hmm. bu ñu demee Sénégalais yi ba léegi xamuñu ne bu ñu rajee président Ousmane Sonko ba léegi acte bi ko rajee mosu ko mosuñu ko notifié ci presse la ko yéegi ba fu may wax ak yow nii jotu ko. ba ko dàqee ba léegi Ousmane. kenn inspection ba léegi kenn joxu ko kayit ko bind ne ko kayit bii moo lay dàq. RFM moo ko woowoon ne ko dàq nañ la léegi loo ci xam mu ne ko kañ lañ ma dàq yëguma ko. moom on a le papier. bee ko ko oui. ba nii kenn mosu ko jox. kenn tegu ko ci loxoom ne ko Ousmane Sonko dàq na la ci inspection. déedéet c'était verbal kon. dañ ay propos rek la ñu tudd nii. du mu gisee muy circuler ci internet bi rajo yi di ko waxee ba nii mosu kenn mosu. lu tax notifié wuñ ko ko. mais justement mooy li ma la wax chercher à humilier un adversaire politique à détruire à liquider. loolu mooy Macky Sall. waaw ah, façon kon ab façon la. exactement kon bu utiliser la même force pour dem jëli président Ousmane Sonko amul lenn loo xam ne daf ñu ciy bett. mais li ciy des nag mooy sénégalais yi nga xamante ne àq ak yelleefu doomu aadama xeex justice xeex démocratie xeex liberté xeex pour démocratie taxaw xeex pour ñu bañ a salfaañi liberté yi nga xamante ne yàgg nañ ko xeex est ce que dañuy seetaan loolu mu continuer am dëkk bi na teg mel ni que tout normal quoi loolu interrogation la boo xam ne ñu ngi ci xaar sénégalais yi. très bien Ousmane moom xam naa ne dafa mel ne li wax dana ko def du dem. buñ ko buñ ko bon buñ ko jëlee mën nañ ko bañ a jëlee tamit ak force mën nañoo waxtaan ak moom ne ko génnal mu ànd mu ànd ma supposé loolu comme mën nañ ko fëkk dugal ko ci bi yóbbu ko attaji ko wala ñu yóbbu ko tëj ko fenn bu keroogee lan may xew bu xaw ma xaw ma parce que tey am na luy xew sénégalais yi ñoo xam am na loo xamante ne ñun xam lu ñu mën euh, sëñ Maodo mooy wax ak sénégalais yi won leen li nga xamante ne mooy danger yi ñu gis muy menacer suñu équilibre société wax ceeg ñoom wax leen ne lii leen jàpp na lii leen la ñu war a def tey ñu ngi salfaañe démocratie ñu ngi dox vers projet de monarchisation maanaam nañu fexe ba samp nguur mhm. kenn ku nekk ci Sénégal muy buur di bumi mhm. sénégalais yi bu fekkee ne lu ñu war a mën a nangu la na ko ne ci xam ne président Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye Birame Souleye Abass Fall ñuy jëm tëj leen te reproché wuñu leen dara mën nañu am seen tur tey waaye turu kenn du mos a weesu parce que fépp fa dictature am dañuy commencer par liquide opposition bi buñ ci paree. Hmm. presse la ñuy dem ak tous les porteurs de voix yoo xamante ne. voix di presse bi kay presse bi seen yoon ñoom si ah. démocratie amul yëpp presse amul fa amul. waaw loolu waaw am nañ ko gis nañ ko ci yenn réew yi d' accord li ñuy jeexale Pape euh, Bassirou Diomaye li ñuy bokk ci cadre yi li ñuy jeexale mooy yéen su ma leen déggee da ngeen a considérer Macky Sall comme un dictateur. dictateur la. ah bon da nga koy confirmer. non mais dictateur la. Macky est un dictateur. oui dictateur la. Dictature, le te lu muy doxal yépp dictature la. ah bon oui 2017 élection législative processus électoral cavalier toog 11h midi Touba amul ay urne Mbour amul ay urne fépp fu mu jàppoon ne am na fa faiblesse yóbbu fa urne wala bulletin à temps à temps normal fan la ci mujjee l' essentiel a gagné Félicitations son ministre de l'Intérieur, intérieur Abdoulaye à l'époque. 2019 rebolote élection présidentielle. mu écarté opposition bi moo désigné carte électoram électoralam moo jël fichier électoralam ak kii moo ko ñi mu jàpp ne ñoo ñoom la àndal muy jël seen responsable ñuy yóbbu seen militant yi seen carte électeur képp ñëpp ñi mu jàpp ne ñii boo moytul duñu ànd ak man notamment ndaw ñi mu bañ leen jox seen carte électeur mënuñu nekk ci démocratie sélective boo xamante ne ñi war a mën a votel nit pour mu màkk yee l'accession démocratique au pouvoir au son maintien moom ñoom ñooy jot seen seen seen seen carte électeur ñeneen ñoo xam te ne mën nañu votel ñeneen ñu jot seen carte électeur Bassirou ñu ngi lay sant maa ngi leen di leen gërëm bu baax a baax euh, looy looy looy tëjee li may tëjee mooy ñun dañu wootee résistance Ousmane lu mu wax démb dafa leer dafa ni j'invoque mon droit constitutionnel naturel et individuel de résister nu muy résister mu ngi ci depuis le départ lépp loo xam te ne day salfaañ ak ak yelleef ak yelleefam daf ci bañ a ànd de collaborer ci lenn loo dafay parce que kon day légitime ñu mën a salfaañi ak ak doomu bu Sénégal sénégalais bu nekk am sa responsabilité individuelle puisque tu es un contemporain fekk na la fi am na loo xamante Mamadou ñu nañ ko Cheikh ñu mu àndaloon ko 23 juin am na ñoo ay 10 ans peut-être ren am 21 ans wala 22 ans.

Sénégalais yi gën bañ noote balaa muy gën a am doole parce que bu ñu bàyyee lii mu gën a am doole nii. Mhm. dina lool ko nett dootuñ ci mën a dootuñ ci mën lu bari. d' accord Bassirou ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm kon xam naa beneen dimanche incha allah daañu dikkaat ci beneen homme politique jërë ngeen jëf wasalaam merci beaucoup jërëjëf.